premier ministre Abdoul Mbaye mu ci biir premier ministre Amadou Ba premier ministre Aminata Touré Mimi euh, ak euh, def naa lim naa ñu war a bokk jëpp ci premier ministre yi voilà ak premier ministre Hadjibou Soumaré Cheikh Hadjibou Soumaré euh, donc loolu it dafay enrichir débat politique bi ñu xam ne ñu xam réew mi aussi ñu ngi ci ak côté de ñi nga xam ne moom xamuñ ci réew mi dara ah, bëgg a dugg ci sa mbaxloo bi rek moo leen ci boole. <laughs> bu ñu leen woowoon tey waxtaan yow Amadou Ba toog. ah oui kon ñu toog waxtaan kon ñu toog waxtaan bu baax danaa ko nangu. waaw loolu dinaa ko nangu. waaw dinaa ko nangu dinaa ko nangu ndax xam naa li may wax waaw man li may wax dama koy euh, teg ci fu leer <laughs> waaw ci xam-xamu réew bi ak xam-xam boo xam ne xam-xamu euh, lu ma vivre la lu ma dund la. Euh, ci non seulement parce que avant may nekk premier ministre nekk naa ministre ay secteurs yu am importance donc nekk naa maire nekk naa vice-président conseil régional nekk naa conseil municipal depuis 1996 Euh, kon nag euh, am na lu bari lu ma xam nekk naa ci jeunesse euh, politique yi nekk naa ci jeunesse étudiantine yi. donc am na lu ma xam nga parcours am naa parcours am naa parcours am naa parcours. en tant que acteur politique ci lu mu am ci jaar-jaar bu mu ko mënee wax loolu est-ce que di nga nangu kon fu mu agsi tey. ci ah peut-être bi nga xam ne président ko nangu parce que c'est un haut fonctionnaire qui a dirigé les impôts pendant longtemps. nekk na ministre des affaires étrangères nekk ministre de l'économie et des finances donc vraiment am na parcours bu élogieux war na mën a nekk premier ministre war na mën a nekk président de la république mhm. waaw loolu moom du ko bañal dàqoo suba bu jaroon ngeen àndaat pour liggéey mën na ne non je ne sais pas loolu moom mënu ko wax loolu moom yàggaguma ci li ma bëgg daal mooy man sénégalais yi fànn boobu daal laa tolloogum man voilà parrainage yi lay dellusiwaat euh, ci liggéey gi nga xam ni yéen a ngi koy def am ngeen nattukaay bu leen di may ngeen mën a xam tey du ngeen di am problème mu doublon wala ngeen di def effort ba yéen yi du ngeen ko am. ci waaw loolu nag moom lu jafe la pour le moment tant que déposé wuloo say parrain au niveau du conseil constitutionnel. Mhm. jox la résultat mënoo xam ndax d'identité euh, yi ñu la jox ak parrain yi la signeel. ndax mi euh, defaloon lañ ko sa morom wala defaluñ ko sa morom. Mhm. Euh, xam nga li ñu wax dañ ne. bu ñëpp déposé dañuy def tirage au sort pour déterminer ki ñuy kiy jiitu ki ci top et cetera ba ba ñuy yegg ci euh, ka nekk ca la alors ci boobu bu boobaa rek lañuy natt xam nga loolu aussi du euh, maanaam ku njëkk a yegg si mën na ëpp chance par rapport du ku njëkk a si la ñuy def comme premier bu ñëpp déposé parce que loolu aussi mooy démocratie bu doon ku njëkk a yegg si rek am na ci ñoo xam ne euh, su leen neexee tout de suite ñu am 120 maires Euh, wala treize députés dem déposer mais doxewul noonu dañ ne bu à partir du onze décembre au vingt six décembre bu ñu déposé ba pare ci la ñuy jukki xool ki jiitu ki ci topp ñi ci topp et cetera. ba ba ñuy dem ci ka mujj. alors bu boobaa ki jiitu moom duñ ko opposé ay affaire doublon ñi ci topp kay lañuy wax ne leen yéen kat seen pare yi ngeen am ni ki leen jiitu pare woon nañ ko ba pare. mais ñiy parrainé aussi dañu war a xam ne nga ne ñaari candidat infraction la mu ngi ci daal ci fiche de parrainage bi ñu ngi ko ci bind. d'accord noir sur blanc. waaw ah, kon nag euh, vraiment amuñ benn nattukaay pour xam ndax pour le moment am nañ doublon wala amuñu doublon. mais lu génn di ngeen ko d'accord. ah en principe man day lu diggante moom mën naa cee d'accord bu fekkee ne jaar na yoon te amul benn raison pour que ma gëm ne ma yaakaar wala ma xalaat ne wala ma njort ne euh, lay xew conseil constitutionnel am na lu ci tâche parce que xam naa. membre conseil constitutionnel yëpp xam naa leen xam naa ne ay nit ñu am maanaa la ñu te parcours bu élogieux moo tax ñu yóbbu leen foofa waaw kon nag amul benn raison pour douter de leur sincérité wala vraiment ci résultat bi ñu xam ne dana génn ci foofa. alors jamono ji nga xam ne yéen yéen ngi mën a commencer collecter ay parrains am na ci koo xamante ne mu di Ousmane Sonko mandataire am Euh, DG nanguwu ko jox euh, fiche parrainage la ca topp gis nañ ko ci communiqué yu génn ak avocat yi parti bu nekk euh, ngir wax lan moo tax moom joxewul fiche yi yoon la mu bañ ko ko jox. ci li nga xam ni expliqué na ko ci communiqué bi. xam nga man dama jàpp ne état de droit du slogan bu ñuy wax ni rek un slogan creux. Mhm. état de droit dafa am contenu ñetti contenu la am l' état doit se conformer au droit. l'État doit se soumettre au droit et l'État doit assurer l'exécution de la règle de droit képp ku jàng droit boo ne état de droit ñetti continue yi nga koy jox bu fekkee ne monsieur Ousmane Sonko dañ ko radier ci liste yi ay avocat am dem ca fañ koy atte attekaay attekat bi ne dañ ko war a dellowaat ci liste yi même bu fekkee ne état du Sénégal dafa exercer voie de recours contre cette décision là dañu war a wéyal décision boobu juge bi rendre loolu mooy l'état doit se soumettre au droit l'état doit se conformer au droit l'état doit assurer l'exécution de la règle de droit donc loolu direction générale des élections def teguñu ko fen teguñu ko ci yoon ci doole lañ ko teg teguñu ko ci leneen lu doole donc pour le moment en e attendant que amul sañ-sañu bañ a amul amul sañ-sañ bi amul mais DGE dañ koy jox diggal ne ko bu ko nangu bu ko nangu lañ koy wax bu ko nangu. ku ko jox ndigal ah, xam xaw ma ku ko que nag xam nga administration ni muy demee ah dafa am c'est stratifié dafa am autorité yu ci kaw ñu nekk ci suuf et cetera ba ba ñu yegg ci échelon. Euh, ci département ministère de l'intérieur donc donc li ma jàpp mooy na ñu jox euh, monsieur Ousmane Sonko ay fiche de parrainage maintenant décision boobu ñu jël euh, tribunal d'instance bu Ziguinchor président ba jël ko mm-hmm. bu fekkee ne frappé nañ ko de d'une voie de recours. Euh, juridiction bay ba ñuy saisir yi bu jëlee beneen décision bu uuteeg ba président bi jël bu boobaa ñu ne kat ah sëñ bi autorisé woon nañu la waaye nag léegi dañ koy dindiwaat ndax juridiction bi nekk au-dessus de juridiction bi rendre décision bi à Ziguinchor nanguwu ko defe naa noonu la état de droit di doxee mais li ci des li ñuy def li yëpp jaay doole la. waaw jaay doole boobu noonu. acteur société civile comme am na aussi des acteurs politiques yu koy ñaawlu di wax ne Sénégal dafa deltu gannaaw ci li nga xamante ne am na ko comme ay acquis Euh, ci wàllu démocratie ak état de droit loolu wér na wala euh, problème bi am mënul tax ñu remettre en cause li nga xamante ne mooy euh, alors man duma damay apprécier ne au cas par cas du ma ñëw rek jël benn jugement bu global le état bi lii li ma jàpp daal ci wàllu Ousmane Sonko bi nañ ko jox ay fiche de parrainage mu parrainé comme tout le monde en attendant que la décision de la juridiction ki ay été saisie mu mu rendre ko mu vider ko ñu mën a xam euh, fan la ñuy féetee définitivement mais en attendant dañ ko bàyyi mu mu pare de comme tout le monde. Mm-hmm. alors euh, boo doon natt tey euh, ci li nga xamante ne rek moom laa doon wax sànq muy état de droit ci Sénégal ci président Macky Sall. non mënuma juger globalement Macky Sall par rapport à l'état de droit dama ne man li may juger mooy dans le cas précis du président Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiches de parrainage mu dem parrainer ji comme tout le monde. Mm-hmm. maintenant le moment arrivera où on on le bilan général de. euh, du règne du président Macky Sall entre 2012 et 2023 ou 24 hein, ce qu'il la fait de notre état de droit mais je ne pourrais pas m'engager dans ce débat là ñi ànd ak moom li ñuy gis moo di ne euh, dañ ko bëgg a xaj mu bokk ci élection yi te jot na fi am ñu fi jaar ñoo xam ne dund lañ lu mel noonu dañ ko bëgg a xaj mu bokk ci élection yi loolu daal tant que euh, mënuma euh, man di def ce genre de projection li may jàpp di ko apprécier daal mooy de façon ponctuelle lii direction générale des élections def par rapport à la décision rendue par le juge euh, d'instance de Ziguinchor ci wàllu euh, ñu dugal réintégrer Ousmane Sonko ci fichier électoral bi loolu moom état bi mënuñu génne benn argument boo xam ne mën na justifier refus direction générale des élections d'accepter de remettre au mandataire de Ousmane Sonko les fiches de parrainage amul mënuñu Moussa Kawaade ba décision boobu ñu jël mën a conforme au droit voilà